jot mboolem suñu vidéo demal youtube bind ASG production bu ko defee ben ci suñuy vidéo dootu la raw ASG production boo demee ci ASG production bul fàtte bés abonné bi daal di taal cloche de notification bi Cheikh Ibra ASG production le reflet du mouridisme spécial Sérine Abdullah Lahad documentaire dédié à la vie et l'œuvre de Sérine Abdullah Lahad yaakaar Sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacke di dom ci Serigne Touba Khadim Rasuul ak soxna Mariam Jakhate Cheikh Abdul Ahad mi gane aduna ci atum 1332 di ama Balsachin ca Njaaréem dëppoo ak 16 août 1914 ci wéru korbi ci ñaar fu fan ak ñett cheikh abdul ahad mbàkke di ñetteelu xalifa ci sëriñ tuuba ginnaaw ba mu wutoo magam ju baax ji sëriñ fallu mbàkke ci atum ba mu ganee jamono bari ay xew-xew yu ci aju ci ay waxu sëriñ bi woona ay jëmm yoo xam ne ci taalibe yu mag yi la xamal leen ne dem fa nopp ba ngeen jàng fa xasit gu ñu tuddee fusti bi darbil xasanaat nga xam ne Mariam mi nga xam ne mooy yaay Seydina Isa Seydina Isa moom la moom la fa sëñ Tuubaa yi tagg moom ne nañ ko jàng foofu tifli ko ci noppam te it na ngeen ko ñaanal mu dund ndax am na ci moom yaakaar lool yaakaari sëñ Tuubaa ñu mu waxoon nag waaw yaakaar la joo xam ne ñii lu tegoon bëtam la ko koo xam ne kii fekk nga jamonoom gis nga ne yaakaar lu mu yaakaaroon ci moom mi ngi ci moom dëggal na yaakaaram bu wér-wér ndax bi nga xam ne yàlla dugal na feeñ na te sëñ bi bu jox ko najaayam bi ñuy wax sëñ Amsatu Jaxate fii ci Touba ne ko joxumal ko ngir ngir li ngay najaayam kat ndax baaxuma loolu ndax man képp koo xam ne kii maa la jur jibbal naa la yonent bi sallallahu alayhi wa keneen ku ñu lay war a ci am cër ci moom itam li nga xam ne bi man kenn amut ci man cër ku yonent bi sallallahu alayhi

bokku na ci ay projet nga xamanteni jot na ko réaliser fi ci daari dunya mu ay dëkk yu mu sanc dëkk yooyee man nañ cee lim kàbb gay man nañ cee lim itam dëkk bu jubbu kàdd ballo ji ak barange bokki barka ak dëkk bi nga xamanteni ni moom lañ koy dàkkantalee di belel cheikh abdoulahat di borom belel doon nañ koo xamante ni itam pas-pasam ci yoonu murit yëbboo na ko ci ay jëf yu kawe kawe kawe ci yooyu jëf man nañ cee lim lu bëree bëree bëri nga xam ni Touba gi di dëkk bu sell bi bokk na ci nga xamante ni lotissement bi def nañ ci lu am am solo assainissement bi itam def nañ ci lu am am solo wàllum commerce bi nga xamante ni marché Ocass moom seen Abdoulaye Mbacké moko moderniser wat ak dem ni dikk bi ak gendarme yi nga xamanteni indi nako ci dëkk bi itam police bi ak l'hôpital yi ak yeneen ak yeneen yi nga xamanteni cheikh abdoulat jambar la ci won lool لو بآله وأفضل المنام رجولنا أحمد كل أهلا اللي يغير السلوات شند الله بكرم دائم لدى من جيل شهني وجبل الخلطة قلبي زبا كون ربي خندي lii nga xamante ni tamit moo aju woon ci liggéeyu sëriñ bi ci digganteem ak yonante bi di xasida yi ak alquran yi mboolem yoonu murit fu nu toll ni ñu sagoo ak a ñaan Cheikh Abdoul Ahad ci daare kaamil bi mu leen tabaxal nga xam ne ay junniy junniy junniy téere mi ngi ci biir ak i kaamil ak ay bindum loxo sëriñ bi ak lu bari loo xamante ni képp koo xamante ni bëgg nga ak leeral ci yoon murit boo fa demee danga ko fa fekk من غير الزود ريم ديدا ونعم دي بوك نا سي جيكو يم جيل سي سيرن بي خيل مو رافت خول بو ري تابي او فيت اك ني مي دك ndax cero bi nga xamee ne gane ne àdduna te mooy bis bii ñuy waajal nii di ko màggal nii Serigne Touba ko a màggal ndax jëfe na ca noo xam ne masu masuñoo gis mu jëfe ko ci lu mel noonu ndax xam ngeen ne nit bu gane àdduna bu dee sun aada nun mbàkki mbàkki yi ba ci busu busu yi ca cosaan dañu daa am daaray alxuraan bisu tuddu bi daara ji duñ mëna duñ mëna bokku ci xéewal gi bu ko defee dañ leen di beral bis ba ko jiitu tuddi ko sarax loolu moo war ñu naan serang baat bi ñu yàqu donc yi nga xam duñ mëna jot ci bis ba bis boobu lañ leen di moomale loolu ñi ci des duñ ko def mbakki mbakki yi koy def ba wala ci bus yi <coughs> loolu nag aw bay lañ ci daara yi togg ci li ñuy wax laaxu caaxaan togg ci tuuti ceeb ndax booba ceeb dafa jafe mi jaxase ko ci benn ndab bu ko defee loolu mooy serang loolu nag aada la juñ fonk ci mbakki mbakki yi aada jooju yi ndegam sunna bañu ko dafa law di wéy ba ci sëñ Mor Anta Sali ba ci sëriñ bi di ko def ci njabootam bi ñu di ko def di ko def ba sëriñ Abdul Ahad ñëw jamono soxna Roqaya Mbacke mi nga xamne mom la sëñ bi féetali won loola tamuy doomi sëñ te mo jur sëñ say sëñ sëñ balle Busa ak sëñ mo Roqaya ak sëñ Ousmane son roqay mom ñew ci sëriñ bi ne ko ndirum soxna Mariama kat ganam gi ñi wara ganale suba aada gi ci da def tudde ko serang dañ ci da def nangam ci def ci nangam ci pep di laaj ndigal sëriñ bi ngir mu joxe ndigal ñu joxe ko. Tuubaa moom day dafa bokkut ak ñu bari nañ def léppam ceeb ndax moom de xam naa ku ko mag waaye xuma ku ko gën. Serigne Abdoul Ahad Mbacké xel mënees koo xiyaas mënees koo itam xaatim ci ay kayit li gënoon a fës ci ay leeral yi nga xam ne jotoon nañ ko gëstu muy Serigne Abdoul Ahad ci dundam léppam da koo joxoon Serigne Touba Xaadimu Rasuul ba keroog. sëriñ Abdul Ahad bis bi nga xamante ni ci yoon murid di le 19 juin 1989 Abdul Ahad ci la wuy ji boromam ca Touba. sëriñ Abdul Ahad Mbàkke yan bu ko sunu borom fayal ci barkeb alquraanul karim xasida sëriñ Touba moo sos murit waaye bi mu sosee murit it Touba gii da koo sos jëlee ko ca Touba ga ca àjjana kon nag bu waxee ne Touba li ak di muridin saadiqin texe ñeel na bépp murit boo xam ne dëggal nga joxe sart yi nga xam ne ci li ak murit di dëggale muy ñetti sart ngeen boole ñetti sart yëpp def ko te benn bu ngeen ci defan mu duñu sëkk may leen la ngeen bëgg kon danaa mën a waat ay saadix ngeen danaa man a waat li ngeen bëgg da ngeen ko am ndax bi xidmatin la wax ñëpp maase ngeen ci kenn ci yéen ku nekk teg na ci bakkanam di ci jëf la man lépp kon nag seenu saadax moom mën naa ko seere fu ne ginnaaw bu naa leen lii nga xam ne mooy sama yéene yéene ko ñëpp ñaanal leen ko ma di leen wax nag laa yee ñoo xam ne néewaa na lool Sëriñ Tuubaa tàggu mbooloo di waxu leen ko moom bu jëntale ko samay wax saabixu ilaa maxfiratin min rabbikum وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أحدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى